loolu bu ko nit ñi def dañuy jël ay fetal. d'accord te jël ay fetal baaxul. Mhm. donc li am solo mooy nañu xool encore une fois je ne suis pas en train de dire que presse waruñu fay impôt parce que loolu aussi c'est du n'importe quoi gars yi dañoo war a fay impôt mais nañ leen teg impôt bu méngoo ak li ñuy liggéey lu ku ne xam na ni presque amul xaalis ba pare nañ leen fay loo impôt boo xam ne ci.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 nabi Vision. yonent bi moko formé façonné ko défar ko ci loxo néna nit ñi buñu gisul mu ju jaaru di wax ko ko moom it na nangu doxalinam nit ñi buñ ci gissé lu jaaru di wax ko ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné moy référence Ousmane Sonko appal li jóge ci yalla leneen lepp da koy tek ci table yi ku d'accord mun la pourquoi nga d'accord ku contre mun la pourquoi nga contre li tax décision mi grave li tax mu il a réussi partout mooy da non déglu nii di jël nit bin murra bin kaab bin Loi, bin aalib bin fahr bin malik bin Nader, bin Kilana, bin huzayba bin mudrika bin Ilias, bin mudar bin nizar bin maat bin adnaan lii daal mooy foowee sa ndaw ba mu màgget ne da ngay jaam ji yàlla imbécile bi yow bañ la xamee ba léegi mosuñu laa wax nga tari saar bu munoo ni munoo jàpp munoo sangu farata ah, léegi daal ba nga politique yaa ngi wax ci diine ji léegi di bind ay livre nag ci diine gis nga ci lañ la nar a ñuusee nag ba nga xam diine ji ngay foyee ci la nar a ñuusee man daal man xamul tax Sénégal bu jug rek bëgg rek suñu diine di sàmm bii foofukaay nu ne nga koy jàngee fi mu toll ay bin lay wax ay bin ay bin la bin bin bin bin maari bin yi boo ay bin bin. Naby Vision Cheikh Yérim Seck amal yar amal suñu complex dañuy tibri de. dañuy téegal de dañ ñàpp sa Sénégal neex man daal xam naa ne Cheikh Yérim Seck yëpp gi mu yëpp sénégalais maanaam Cheikh Yérim Seck yëpp gi mu yëpp ñun sénégalais gars yi xanaa ñun suñu kanam dañoo yërëmtal moo tax Cheikh Yérim yëpp ñu Cheikh Yérim kon daal ah ok yow daal kon xam nga ne comme tuuti politique bi affaire baaxatul maanaam Cheikh daal nga kànku ci diine Cheikh nee na yaay ñun lay jàngal ku yërëm di ay waay maa ngi jom wuy sama ndey si seex ak ñu jàngal yonent bi seex yow yaa ngi jàngal yonent bi seex ñun jomm nañ ba noppi suñ tuwaa jàngal nañ ko yonent bi ma Maodo moom daa mel ni këyit gi bi ko yàlla sàkka ba pare da koo jox na ko mu ngi nii seex seex seex cay toppale nga ne de génnal ci li nga ne ba si ci wicc ay eh waay seex yërim yow ñu da nga yem ñu kon daal yow de mu la neex booy wëlbi tey seex yërim ma ngi jël xeli Sénégal yi men ku yor bal ping pong de ping pong ay eh waay sax yaa ñu jàngale yéen di waay waay waay jommi naa bi kay jiir woon pap pap nga njaay di ñëw pap nga daa mun ne yàgg rek toog doo xool ah ne question sur question ngañ daa mujj ne nii di xool seex dafa koy xool ba jàgg day ne ni loxo ba jàgg wàcce waat ko ba jàgg mayaat la bi ba jàgg ni waat nii ndeysaan ma xam ne rek ndeysaan tey pap ngañ sax danga ko réeral seex réeral nga réew mi eh waay seex génn ci li nga ne waaw da ngaa jom Naby Vision yérim mi ñëw indil ñu yeneen bi luñ ci mu yérim fi taxawoon Nek bok ci sonk du bok jomay jël rew mi ñu wara a rew mi yirim ñu indi ñuy nabi <laughs> ay yirim bu nekké da nga jaj da nga dégg ci conférence de presse bu Ousmane Sonko na nu mel ci yonent bi tax nga bind ci yonent bi yaakaar ni waji dina balé balé wuñu balé walé yirim fu dale pee yow sa lo bind ci di ko xol balaa nga koy bind wala nga koy wax kusting ngay laaj yow yaa soxla kusting yow bi bind ci nag seeti jil Modou Fall nag ak yeneen ustaas yi pour ñu dimbali la parce que livre bi doo ko publier tant que ñooñu wuñ ko xamoo dara looy wax nabi nabee njaboot xam ngeen kii kii kii kii xam ngeen ko kii demoo la fi Cheikh Bara doon wax naan bu solee costume bu bees rek waaw mu ñëw fen fen yu bees <laughs> fa ñu a dafa làqatu woon gëj naa génn nag gëjoon naa génn de mais xam naa da doon bindaal beneen beneen beneen scénario da doon bindaat beneen scénario bu bees. Naby Vision. tey xam ngeen bu mu indi tey <laughs> ci Pape Ngagne tey daal xarab na waa waa kii waa këram waa këram xarab waa këram daal la xarab ba bàyyi boole ceeg nag da doon de tey da doon ci yonent bi la ne woon tey da doon gàmmu de pourtant nag seen famille ñu ñu jàng dañoo jàng de mais lenn rek mooy seen cat mooy lëmum guy mi lëmum guy gi rek mooy seen tet moom boobu moom mënuñu ko échappé a boobu rek mooy seen problème tet Yérim Le Phénologue mooy phénomène de kii ay ay ay scénario bi de bind dina beneen ba génnaat pour mën a adapté wu à la situation yaa yërëm waay yërëm ah tuwaar kàlla rek kii lay moo xoromu. waaw yërëm yërëm yërëm yërëm du la nag oustaz oustaz. voilà voilà suñu conférence yi am fii ren moom yërëm la ñu woo de. non yërëm nañu woo yërëm. xool xattal Omar xattab. وأسى الهتاب والبهريرة والمسرين والجرورين والحال Naby Vision. Sénégal nee na du lorok du lorok du lorok ay see du lorok dugg costume de yërëm yaa xëttoo Moustapha war bexer sabaanu mu jeeru mu yërëm na dugg ci bari ko tiwin génn nee du moom yërëm ngay dafa dëgër fit ku dëgër fit ak ngoog barki rasulullah waaw ma dañoo dugg ci weeru gàmm wala Taamin dugguñ ci weeru gàmm de gàmm jotagul de Yérim yow mi sa xel mi dem na de muy bin Kinaan ak bin Mutaar ak bin kii ñu gis nañ fi Serif taf gis nañ ko fi gis nañ fi Pape An bu ñu fontoo ngay bin Kinaan bin Mutaar bin Xaasim bin looy bin bin fii kenn bin binu fi bu ñu fontoo fi nga nekk ci bi di fenn naan ay ñu lay vaar nga ñàkk jom cem yaa fi Fensep TV ñëw fii ñu baax la TFM papa nga njaay mii boo ko moytuwul da lay toroxal de lu leer nag laa lay wax irim bàyyi mi ngay def. Naby Vision man depuis lool ku nekk sama kanam di wax wax nag su dul noonu di fenn li ma lay wax mooy bàyyi li yërim bàyyi li yërim laa lay wax parce que li nga daan wax daawoo ko teg ca xam-xam da nga naan nekk di topp sa bànneexu bakkan di fenn rek. taxaw ci télévision yi naan ay ku bokk Pastef doo mës a nekk président ki li fi yóbbu Ousmane Sonko fi bàyyi Diomaye ak boobu na ko waroon a archiver enregistré ko pour buñ la wootee télé boo demee nga xool baax li ngay waxaat mais dañu ne fent du ngeen enregistré ba feneen da nga koy enregistré. Cheikh Yérim déglu naa la faram fa mënoon nga wax ba jeexal nag <laughs> te nag boo paree la tontu. waaye nag yaa bëgg indil sa bopp tontu indil sa bopp message. Cheikh si télé Futurs Médias mel na ustaas buy wax fekk na dóorkat nga. indil sa bopp message. nga ni président de la république Bassirou premier ministre Ousmane Sonko nga ni war na leen ah danay war a jàngal wax. sa man nag am naa benn gis-gis. Naby Vision. ñi yor seen géen di tëmbaambal di ko dugal si fu ko mu bokkul. ñooñu nag war na yor seen bopp ba ma gën a neex ci coow li nag mooy Cheikh Yérim est-ce que xam ngeen ne weddi na lépp loo xam ne waxoon na ko ci Pastef. xam ngeen Cheikh Yérim waxoon na fi bu ngeen fàttale ko ay jamono ca waxam ju bari ja newoon nag euh, képp ku bokk euh, euh, Pastef li éliminer Sonko moo lay éliminer bu kenn xalaat lu bokk Pastef di bokk ci élection yi benn punto numéro deux Cheikh Yérim waxoon na fi bu leen bu ngeen weddee li may wax dugg leen ci internet bi ngeen xool waxoon na fi ne képp koo képp kuy taxaw ku mën a gagné premier tour amul Cheikh Yérim weddi na lépp tegee ko à côté kosam bokkaat nee na gucc la laal noonu ñëw toog guccem bi bu ma ko joxoon ba ma yóbbu ko ci Youssou Ndour bee la la le 17 agost bi ñuy tëgg Brescia mu xoju nii comme ku yor ay rab Cheikh Yérim am na fit te moom kat waxam ju bëri ji yëpp nee na moom léegi mu ngi jàngale xaw ma fan lay jàngale te jël leen ma loolu yéen ma yeggale nee na mu ngi jàngale moom nekkutoon sax Sénégal te analyser na ba joxe ay conseil nee yow ñi ngay jox ay conseil nawloo wuñ la te duñ la déglu loolu la ma. waaw mais ani doomi daara yi man dama tiit de Yérim moo ne moo moo toog télé tey nee na dañuy jàngal yonent bi man fi mu ne nii tiit naa ci réew mi de yaa problème ama ah, man damaa tiit di Yérim damoo toog param-fànca nee na dina buy dédicace livre am bi dana jël six heures de temps expliqué ñu kuy yonent bi seregal <laughs> nag fi mu ne nii nag am nañ problème ana oustaz yi ak sëriñ yi nañ jóg Naby Vision nañ jóg yaa problème de